des ONG, mais aussi de la société savante et toutes les bonnes qui sont invitées, euh, surtout à se mobiliser euh, pour la prévention des facteurs de risque des maladies non transmissibles. Pourquoi euh, considérer que c'est quelque chose aujourd'hui qui touche toutes les familles. dans toutes les familles, vous avez des personnes qui sont hypertendues. Vous, avez, vous connaissez des gens qui ont Euh, AVC, diabète, je pense que euh, c'est lié mode de vie et qu'il est important de communiquer, d'apprendre euh, à changer notre mode de vie et à le plus simple pour éviter non seulement d'attraper ces maladies transmissibles, mais aussi d'éviter des complications. Votre approche, la relation, comment vous faire Euh, notre approche, c'est la communication, c'est la prévention. On sait qu'au euh, Sénégal, euh, le ministère, le gouvernement se mobilisent beaucoup dans la prise en charge. C'est vrai, c'est quelque chose de très bien qu'il y ait la gratuité des soins, de la chimiothérapie. Tout, ces, tout cet investissement-là est très important et nous le saluons. Euh, L'analyse situationnelle que nous avons fait euh, au départ de cette année a permis de voir que il y avait prévention. Est-ce que nous avons réussi des alliances sont déjà existantes et qui sont mobilisées, que ce soit sur le cancer avec la ISCA, l'association Docteur Nakamo qui, qui, qui, sur la prévention par le sport, par l'alimentation. nous avons également des associations, des hémophiles, des, des, des, des prépanocitaires, la LISCA que j'ai cité bien internationale comme PASS, où je travaille et, euh, qui, accompagne euh, l'Alliance. Donc c'est vraiment fédérer les bonnes volontés euh, pour, premièrement, identifier là où le Sénégal doit des efforts. Parce que y a des choses à faire, mais il y a encore des choses à faire. nous là faire des efforts. Et ce que nous faisons, c'est nous parlons avec notre partenaire privilégié qui est le ministère de la Santé, en l'alertant. Euh, écoutez, ici, je pense que ce serait important euh, que euh, le gouvernement investisse dans la prévention parce que le combat ne se gagnera pas dans les hôpitaux, il se gagnera dans la communauté. donc euh, c'est identifier, alerter euh, et aussi proposer des solutions. Euh, vous avez vu qu'il y a une diversité d'organisations, une diversité de professionnels, de scientifiques qui seront là pour réfléchir. On va avoir des, des journées scientifiques, proposer des activités avec les communautés. On peut dire que la seule chose importante, c'est euh, de travailler ensemble euh, pour trouver des solutions pour les communautés. Tout à fait. Aujourd'hui, commencer euh, par euh, l'Alliance mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles, qui est une alliance qui, est basée en Europe, à Genève, euh, mais qui soutient beaucoup d'alliances africaines, asiatiques, européennes. donc nous avons un financement qui, est, quand même aujourd'hui, on va dire, notre seule source de, financement et qui nous permet de, fonctionner. Et, et, me donne l'occasion de faire un appel

ce sera une collaboration parce qu'effectivement, ils peuvent financer et on peut les accompagner techniquement pour euh, trouver euh, des approches innovantes euh, pour euh, justement euh, soutenir la lutte contre les maladies de transmission. On a parlé tout à l'heure euh, de l'urbanisation. C'est des choses qui sont importantes. Si on veut promouvoir le sport, il faut bien qu'on ait des, des espaces pour, pour, faire du sport. Si on dit manger ça, il faut bien qu'on ait ce que les produits soient euh, Donc, voilà. Bon, au sein de ce lancement officiel, vous avez quand même, comme je disais, fixé depuis 2018. Avez-vous déjà fait quelque chose, genre euh, sensibilisation, prise en charge Oui, plus de la sensibilisation. Euh, plus de la sensibilisation parce que euh, nous avons travaillé avec l'association Victor Lacarne à former, sensibiliser des panélogues, euh, donc euh, les acteurs cancer, on les a, on les a euh, sensibilisés sur euh, les maladies non transmissibles. On a euh, célébré les journées mondiales, toujours dans la communication, mais comme on a dit, c'est le lancement et je pense qu'on se retrouve sur D'accord, tey ngeen euh, lancé li nga xam ne moom mooy seen alliance bi alliance la moom ak. waaw alliance de lutte contre les maladies non transmissibles maanaam feebar yi nga xamante ne bu Euh, li ko tax a jóg mooy aar population bi ci ci feebar maanaam cancer diabète hypertension mais aussi feebar euh, yi nga xamante ne euh, dañ koy jubluwaale maanaam loolu ko prévenir mais li ñu mën a def mooy accompagner population donc euh, alliance euh, fédération maanaam ay association yoo xamante ne société civile ay association de patients association yi nga xamante ne euh, dañuy def prévention comme ay association yi wax société savante maanaam ay professeurs d'université ay association d'accord seen approche naka ngeen def ba mën a convaincre mën ngeen waxtaanee ci seen bi am na tax li ñu tax a jóg mooy maladie non transmissible mu wàññeeku Sénégal parce que euh, li ñu seetlu mooy maladie non transmissible bi ñu wuteel ak maladie non transmissible euh, mooy du wàlle euh, fan lay jógee. dañuy dox fàq dañuy naan alcool yooyu noonu yëpp pour mën a andi maladie donc li ñuy def mooy communiquer waxtaan ak population ñu mën a moytu suñu approche nag mooy ñi nga xamante ne ñuy. ci maladie non transmissible yi gouvernement bi investir na lu bëri ci faj mais prévention bi des na donc euh, dañuy def plaidoyer pour que ñoom ñu mën a euh, yokk seen seen seen pompe ci wàll. stratégie yi ci communication lay parce que euh, lépp lu mën di boo ko xamulee mënu mënu changer li ngay def tey boo boo gisee. peut-être xamuñu kontaan luñu lu tax ñu naan baaxul donc c'est a gën a a aar ci ci ci loolu bu ñu waxee sport peut nit ñi comprendre ñu lu tax ñu naan leen rek war a def loolu itam c'est communiquer changer au-delà de ministère bi am nañu ne dina support ci wàllu koom pour ngeen mën a gën a seen kanam. tey tey ministère de la santé suñu partenaire privilégié ndaxte ñoom ñooy def suñu liggéey mooy euh, l' alliance mondiale de lutte contre les maladies donc euh, ay fonds la ñu à l' étranger donc euh, occasion la pour man pour mobiliser les entreprises pour que ñu mën a jàpp ci bi parce que liggéey bi fii la war a tàmbalee balaa ñu koy donc les responsabilités sociétales ñëpp ñi nga xamante jàpp ci ci liggéey bi pour les santé am. ndax am na loo xam ne jot ngeen ko def ak yéen ñoo xam ne jot ngeen ko ak yéen ñoo. waaw xëy na aussi moom ay ay communication ay formation euh, ak ak bàjjenu mbokk di def ay émission grâce à l'association Docteur Nakafo di ay sorties di dem ci marché yi euh, di def ay euh, ay waxtaan ay sensibilisation. ay dépistage donc yooyu